at yi passé ñun suñu liggéey dafa nekkoon ci ay jafe-jafe yu bari muy ñuy def collecte bi di Codipass muy ñuy def trans euh, transformation primaire bi ak triage bi muy arop ak ñi nga xam ne ñooy nal diwlin gi problème yooyu nag yàgg nañ cee wax waaye saafara amul woon ñu jàpp ni dafa amoon li ñuy wax manque de volonté politique maanaam ñu fi nekkoon dañoo amul woon yéene indi ay saafara suñuy jafe-jafe parce que waxoon nañ leen ko waxoon nañ leen solution yi waaye gisuñu luñ ci def. loo xam ne tax na ñu jóge ci jafe-jafe yooyu le 24 mars nag changement am maanaam Sénégal dafa am benn gouvernement nguur gu bees ba Diomaye Faye jiite ko ñoom ñu ni dañoo bëgg rupture maanaam dañoo bëgg lu fi nekkoon ni ñoom ñu ni dañoo bëgg moom suñu bopp ci wàllu bay dunde maanaam ñu dañoo bëgg nit ñi di liggéey dañoo bëgg maanaam am souveraineté alimentaire ah ñun ñu ne kon gars yi kon ñii ñoom li ñuy wax ak li ñuy wax benn la waaye nag loolu pour ñu xam ko foog ñu wax leen ko wal suñu bopp wax leen suñuy jafe loolu moo waroon forum bi ñu teye ñaari fan ànd ci ay services techniques de ministère l' agriculture ànd ci ak yoo xam ne nii ñi ngi fi nga xam ne bu ñu paree wax li ñu fiy wax mooy jafe-jafe yi jàkkaloonteel tàmbalee ko ci collecte ba maanaam jëlee gerte ga ca àll ba indi ko Touba loolu lépp ay jafe-jafe am na ci te loolu lépp dinañ ko dinañ ko wax ak jafe-jafe yi nga xamante ne nii ñi fi nekk di xolli gerte moom lañ am ak jafe-jafe yi nga xamante ni ñi nal diwlin bi moom lañ am ak jafe-jafe yi nga xam ne ñi def conditionnement moom lañ am loolu lépp nag buñ ko boolee bu ñu ko waxee ba pare wax nañ ay solution wax nañ li nga xamante ni daal bu ko gouvernement bi defee maanaam ay saafara dina am ci jafe-jafe yooyu te saafara yooyu bu ci amee mooy tax ñoom li ñu bëgg maanaam souveraineté alimentaire création d'emploi industrialisation ñoom nañ ci am ndam ndax xam naa ni état du yàgg-yàgg ba mu naan daf fii ñëw naan dafi defar usine usines yooyu nag am na fi waaye dañoo nekk ci ay jafe-jafe donc moom bu jàppale usines yooyu ci lay a atteindre objectif am ci atteindre li wax souveraineté alimentaire à travers l'industrialisation problème yi nag dafa bari ndax ki nga xam ne mooy jëli gerte gi ci àll bu demee am na problème déjà euh, pour indi ko Touba ndax ci yoon bi am na ay tracasseries maanaam dañ koy takk der yi dañ leen di arrêté di leen takk ci ay coono yoo xamante ne nii méngoowul ak yoon bu ñëwee ba Touba am na ay jafe-jafe jaay seen bagage ki xam ne mooy xolli aussi am na ay jafe en tout cas daal kenn ku ci ne am nga say jafe-jafe yoo xam ne te euh, waxtaan nañ ci ba bind nañ ko ci kayit ba jàpp leen ni état bi bu ci indee ay solution dina dinañ si gis suñ bopp Touba na ci gis boppam. Euh, Sénégal ci boppam ndax ñi nga xam ne ñooy xolli gerte tey mën a créer trente mille emplois te tey fii may waxee yow ñoom ñëpp tëj nañ ndax ku ne xam ne ne diwlin dañ koy jéggaani bitim réew te Sénégal mënut am gerte vraiment ñu exporté ko sàggane ko di importe diwlin boo xam ne ku ko ku ko xam muy huile de palme xam ne baaxul ci wér-gu-yaram bari na ay ay feebar yi fi am ci maladie cardiovasculaire ak ay problèmes yoo xam ne diwu palme boobu bu ñu ko xoolee ba xool moom moo ko indi fii waxee yow rek am nañ capacité 40 pour cent diwlin bi ñuy soxla ñu liggéey ko Touba ñi ko mën a jëlee ci àll ba indi ko ba Touba ñi ngi fi am nañ matériel yi am nañ jumtuwaay am nañ expérience bi ñi ko mën a xool xolli trier ko ñi ngi fi ñi ko mën a triturer ñi ngi fi ñi ko mën a raffiner ñi ngi ci dëkk bi xëy na nag amagu fi raffinerie parce que loolu tamit suñu bëgg-bëgg la ñu am suñu raffinerie bopp waaye en fi am ñu mën a raffiner duy bi am na fi ñi ko mën a conditionné am na fi te ñi koy consommé tamit ñi ngi fi ndax diwlin moom ku ne xam ne ni mun a ñàkk mun a ñàkk ci réew mi ndax ku ne xam ne ni aliment bétail cher na li ko waral mooy dañu amul raakal bu doy raakal boobu ñun bu demoon bay liggéey dina fi doy te bu doyee vraiment aliment bétail doy dina tax euh, xar yomb yàpp yomb bu ko defee loolu tamit dafay bokk ci euh, politique souveraineté alimentaire bi nga xamante ne ni moom la état Sénégal a indi ci dëkk bi notification yi nga xam ne moom lañ soxla pour mën a séddalewaat semence bi campagne bii di ñëw notification yooyu jotaguñ ci dana jot na ndax fi mu nekk nii taw bi moom tàmbali na te bu nawee ba 14 juin moom day tàmbali waaye ñoom paraden xam nga ñoom ñoom jumtuwaay yëpp am na fi ñiy def transport bi muy les Codipass am nañ ay oto xam nañ àll bi ñoom am nañ ay magasin ñi ngi denc bagage waaye foog notification bi génn bu notification bi génnoon tey suba wala ginnaaw suba ça dépend ci zone bi ni mu ni mu jege ak ni mu soree ñoom dinañ commencé yóbbu gerte gi pour que béykat yi commencé cee jot tawee ñu mën a ji mën commencé liggéey loi yoo xam ni ne 1985 lañ ko fi tegoon war nañ ko mën a soppi ba mu méngoo ak jamono loolu moom dañ cee war a gaaw parce que ñoom même bu ñuy jaay usine ba abattement yooyu yëpp dañ koy calculer par rapport ak décret 1985 boobu te ku ne xam ne ni jamono moom weesu na fi nekkoon 85 ak léegi du du du léegi donc dañoo war a am ay décret yu bees mais loolu nag pour ñu def ko dañoo war a wax yi te it loolu beneen cri de cœur la dama jàpp ni gerte bu ñu koy wax ci Sénégal mënuñu ko wax te woowuñu waa Touba te man de awma réunion bu may dem fekk fa waa bu dul waa Rasiat ñeneen ñi doo leen fa gis te ñeneen ñi ñoo ëpp doole foofu ñoo ma fay gis dañoo jàpp ne fi ñu waxtaanee ci gerte muy comité de suivi muy comité intermi interministériel ak lu mu mën a doon rek ñi koy wax ci gerte war nañu mën a woo waa Touba ndax ñoom ñooy acteur nekk ñeneen di woo ku ci waroon ab forum doomu fukki nit amu ci kenn ku mu ñemee woote forum parce que doomu nit leen nii ba mën a woote lu ñuy waxati ci gerte war nañ leen cee mën a boole ba ba la ñuy defaat yeneen décret ak ci ñu woo leen laaj leen seen xalaat li nga xam ne mooy exportation bi ñu de dañ ni avant 2010 kenn daawul exporté gerte problème bi nag mooy 2010 dafa amoon surproduction maanaam mbéy bi dafa jéggi woon dayoo ba Sénégal ñu am problème mu jaay gerte mooy problème invendu bon impayé et cetera Abdoulaye Wade daan ni kat comme amu leen pexe ci gerte gi man dinaa libéraliser gerte gi bu ko defee ku jóge bitim réew mën na jënd suñu gerte boobu moo tax ba 2014 ñu euh, gerte gi Chine waaye loolu dafa dem ba nekk saafara su jàngoro. parce que baykat bi nga xam mi ngi doon gis boppam dem na ba moom mënatul am semence opérateur bi nga xam mi ngi doon jaay eh, chinois yi dem na ba chinois yi bu ñëwee tey moom dootu ko gis day demal boppam ba ca àll ba maanaam moom mu ci doon jariñu ci exportation boobu mënatu mu dox maillon bu ci ne da ngay mu gis boppam ñun nag dañu exportation bala moo am dañ def transformation maanaam li soxla